بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 di ñu seetaan ci jataay bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy amal fii ci Touba di juróom-ñaari fan wala juróom-ñeenti fan ci weeru kori ci kër gi nga xamante ni bii këru kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim gi bokk ci këru kenn ci taalibey sëriñ Touba yi ñu àndandoo ak njaboot gi teew di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu nag ki yàlla teg ci bopp yoonu moo murit di sëriñ Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko fee yàggal gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di beral ab nuyoo boroom jataay bi di sëriñ Abo Mouhamed di xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke waaye di jëwriñi kër soxna may munatu Mbakke <clears throat> bintu Cheikhul Khadim ñu am mbégte toog ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ toogal ci ndigalam fas yéene fàttaliku taalibib sëriñ Tuubaa bu mag boobu <clears throat> fas yéene fàttaliku boroom xam-xam bu tedd boobu fas yéene fàttaliku murit saadix boobu fas yéene fàttaliku boroom jikko ju sell doonan ko jaxasoog ay bokkam waaye doonan ko mën a yare te doonan ko yaru di soxna may mënatu mbàkke kubra bintu cheikhul xadim loolu moo tax ñu toog ak sëriñ moor may sëriñ moor soxna moom sëriñ cheikh may mu toog ci ndigalul waajuram sëriñ Abo Mouhamed ñu feggoo ak sëriñ Mor Soxna moom sëriñ Jili Gànnaar feggoo ak sëriñ Busra Samb ak sëriñ Abdoulahat Mbacke moom soxna Ayda Bousso moom soxna Xadi <coughs> moom soxna Aminta buso moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul ñu seq ak jataay bi bokk yi nga xam ne ñoom lañ toogal nii ngir fàttaliku sang bu tedd boobu. di ko def nag ci ndigalul sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahmadul Mamoun di ci ziar bu baax soxna yàkkale Mbàkke bintu Cheikh Mahmadul Mamoun waaye ak mboolem buntu kër yi soxna may muna yi la ko tàmbalee ci kër gi ñu toog di kër sëriñ Cheikh May jàll kër sëriñ Moustapha May Daarul Moxti ziare sëriñ Mbàkke ziare sëriñ Moustapha moom sëriñ Mor May waaye ziare Cheikh Abdoul Khadir moom sëriñ Amdi May muna di siyaare bu baax sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom soxna Toora ak sëriñ naa moom soxna Yàkkale ak mbooleem ñi ñu bokkal askan wi yëpp nag mbokk yi ngir njëkkante ak yéen ci waxtu wi dañuy bàyyi ak sëriñ Mor Soxna moom sëriñ Jili Gànnaar mu ubbil ñu jataay bi ci biir ab nuyoom mën na cee tàbbalaale xamal ñu kan mooy kii ñuy waaj fàttaliku di soxna Maymunatu Mbacke mooy kan ci ak bokk. fan la gane àdduna ak ba ci lenn ci fan la jànge alquranul karim su noppee ñu bàyyee sëriñ Busra ginnaaw bu ñu ko jaajëfalee ci coono yi nga xam ne toggoon na ko waaye waxtaan wu rëy wu am solo wi nga xam ne waxtaan na ko ci koor gi ngir xam le baaxuk sëriñ Tuubaa gi ak kennam gi ñu ñaan sun borom yàlla na ko yàlla doole ak wér te doole ko kattan kon sëriñ Mor ñu bàyyee la kàddu gi bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy fàttaliku jàmbaar ju mag jooju di soxna Maymunatul Kubra bintu Cheikhul Xadim di jiital ci nuyoo beeg siyaara bi sëriñ Abo mi nga xam ne mooy jëwriñu waa kër gi fii nu toll tey ñaan sun bam mu yàggal ko fi lool te wéral ko jaarale ñu nuyu bi sëñ mboor mi toog ci jotaay bi ak sëriñ Abdul Xaadir ak ñu ko bokkal ñëpp maag ja njaboot ngi ni nga ko limee sëñ Fall duñ ci delluwaat di fàttali ko xam ne ko ma du du kuñ fàtte sax nag ndax jëfam tax na waxtu nekk day dund Eh, du jug ci xol yi du jug ci xel yi waaye fàttali nag day ndigal suñ boroom ndax njariñ lu mu amal ñañuy fàttali soxna may nag eh, ni nga ko laaje bu fekkoon ci nit ci bokk yu baax rek lañ koy natt buñ ko nattee ci bokk yi mu doy sëkk sëriñ tubaay waajuram doy na sëkk loolu jarul commentaire waaye ni la tànnoo itam ci wàllu meen soxna Aminte Bousso mi waajuram eh, doomi sëriñ Bousso bee sëriñ Bousso bi ku ne xam na li mu doon li doon ci diggam a boromam waaye li mu doon ci diggam a sëriñ Tuubaa ndax seen ñaari waajur ndax mbokk waajur ñoo bokk ndey ak baay mu soxna jaara mooy càmm ñoo soxna jaara waaye di xam ne fànn ñuy natte nitug yàlla yëpp daje na ci moom ca xam-xam baag sell gaag baatin baag lépp ak cërub yàlla ba mu am waajuram bu góor soxna kan ni Mbàkke kan mooy waajur kan na Aysa Balla ko jur moom maam Balla Aysa kon mbokk Sëñ ñoo bokk lépp mi ngi gane àdduna ci yeen Jolof ñetti fan ci weeru tabaski atum Haksashin mooy 1325 ci gàddaay gi dëppoog la 7 janvier 1908 mooy bi Sëñ jógee gànnaar ba dem ci yéen ci at mu njëkk ma ca la gane àdduna man fekk na sëriñ bi fees dell ak boroomam lam doon wut lépp am na ko soxna may door a feeñ ci moom loolu doy na sëkk ab tegtal atum xegsasin nag doon at moo xam ne Sëriñ Tuubaa fonkoon na ko lool ba def na ci ay tënk ci tur yàlla def ci tënk ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa ci mi ngi ci muxaddamatul amdah allahuma yaa haadi yaa karimu yaa salaamu yaa shakooru muy xegsasin salli wasallam barik ala sayyidina mawlana muhammadinil mahdiyil mukarramil musallimil mashhur mi hak sin ba tey hak haadi karimu sinu salaam ak seenu shakur mi hak sin ba dee tur al mahdiyi mim googu eh, eh, eh, haagi al mukarram kaaf gi al musallam sin sin gi al mashkur sin si mi hak mu am na ñaari xasida yu mu yu seexool yoo xam ne ci bis bi nga ne àdduna ci la ko sëñ bi waay xasida gi mu tënk allahu muy ihfatu bi karimi kulla man xafisa abyaat fi kulli zaman ak yi soxna may te yooyu yaar xasida sëriñ bi neen ku leen mokkal te di leen jàng dootoo génn ci man duma génnati ci te soo demoon ba ba ma it man du ma la ba kon lu lu lu lu kawe la moo tax mag ñi dañ daa wax ne soxna May fa fokk mu jub fokk mu yàlla fokk mu jub ndax al al alhaadi ci lañ ko ci lañ ko al allahu ci lañ ko mooy kon faaw mu jub faaw mu yàlla. Eh, bi mu ganee àdduna yàgges na ko wax bi nga ko yëgalee sëriñ bi dana góor lam jigéen te sëriñ bi lu mu lu mu masaan njëkk a wax rek loola lay doon. góor la am jigéen góor la am jigéen la laaj te lu masaan njëkk a rek cib laaj ni lam njëkk a lay doon ñu ko moo ne mbàkk jigéen la de ma tekk as ndenn moo ne moom di cëru góor lañ ko fàgguloon cëru góor lañ ko fàgguloon nag daa jeexeetal ci mboolem dundam gépp doxinu góor la dox njàmbaru góor la am cëru góor la am jaar it fi mag ñépp jaar jàng alxuraan ba mokkal ko teel ko mokkal lool ci seen si ndam loo bi am njàngam àggee ba bind kaamil jébbal ko sëriñ bi e, ci njaareem la ca xew dañ ci ñëw sëriñ bi joole ko boole ko sëriñ Mbàkke bu mu jàngal ko xam-xam ba mu géeju lool <coughs> loolu des na ci ñëw mu saxoon ci jàng ak jàngale doon boroom xam-xam lool te daa ko jëfee rafetoon ak taalibe lool te doon itam ab sha ab shaira bu mën a way lool way lu bari te daana way arab daana way wolof su dee kaamil bi mu bind sëriñ Fàllu binduloo ko ko mooy ñetteelu kaamil doy na ci sëkk firnde luñ muy luñ ma luñ ma teg loxo nu indi misaal ci lenn ci wayu arabam ak wayu wolofam bu ñëwee ci digg ma sëñ Fàllu ñëwaat ci kaamil boobu bismi ilaahi allati laa rabba siwa siwahul motar abdul ibba muy xasida gu gudd man lépp arab la waaye nekkoon ku wàcce boppam ku toroxlu ko woyofal boppam eh, te nit moom eh, koo gis mu yëkkate boppam rek mooy ku la waaye ña ña waxtu nekk dañu wàcce seen bopp béykat yi nga xam da ci doon mel ni ko yedd boppam ci daal yaafus na te waroon a farlu maymuunatun bintul xadiim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag ba ne am am nga ci ngor dara dara war na la sant yàlla lool war na la tuubal ko toxool li ma la may ta xam ne tool ku ca na war di def dara jëfal te rikk bul tawat yaa ngi ni wetti te warul jugal sadd ay bay tax te yëg ni nekkoo ci dara ndax naa ak toroxlu foofu la mën a mën a yam mu doon ko bëgg sëriñ tubaa te gëm ko lool te doyloo ko lool te boo déggee ni mu waxee ci moom da koy firndeel amma ida jahilta shaykhan al makki fa innahu waarisu ahmad al makki lahu bihi tasdiqu wa tawakkul wa zuhd wa rajaa wa tabatulu la siyama al qur'an wal wa xikamul kiram wa tahdiisu boo xamul kuy sëriñ tubaa neel rek mooy ka donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca dëggal ga ca wakiilu ga ca dëddu àdduna ko ci yaakaar ga yàlla ci jaamu ga rawatina alxuraan ak xadis ak xikami e, gaa yu tedd ya dem ba ca biir ci bëgg googu e, dem ba ci mun mën a jama anallah bi tawi siyaam wasi siyaam fii sumratil xadim fi yawmal qiyaam ëllëg bis penc yàlla nanu yàlla boole ci mbooloom Serigne Touba ci barkeem ci barkeem ak ci barke weeru koor wi nekk maa jamil anbiya wal mursalin wala wala awliya kamilin al wasilin bëgg ak gëm mu lay firndeel ci la mu ne fa man tashakkana fa man tamassaka bi shaykhina bila shakkin wala tadatu bi naalal ula li annahu xayru min assudaani fi sharqi wal maghribi wal bidaani aatana allah min alladina lam yatamassaku bihi amina képp ku jàpp ci Serigne Touba te sikki sàkk woo déngi déngi woo faaw da nga kawe ndax moo gën ci mboolem nit ñu ñuul ñi ci penku ak sow moo gën yitteen ci mboolem nit ñu weex ñi ndax ne yàlla nañu yàlla musal ñi nga xam ne jàppuñu ci Serigne Touba amin bokk na liy bëgg fin liy firndeel bëgg gi bay di mu bind ci loxol boppam nga xam ne waaye sëñ ma sëñ ma jaw paxal sax waaye bëgg rek la ci firndeel mahabbatul abdil xadimi wirdi wa huwa ladaatil arsi xayru wirdi bëgg sëriñ mooy sama wird dafa yàlla doy doy doy na fa sëkk wird ak bayit yi ca topp su dee hectare bi moom mooy ci la gën a firndu li ci dañ dañ koy dañ ci jaar ni door ci des ci ci may soxna Maymuna soxna Faati ji moo doon sëriñam soxna Faati ji mooy taal bi sëriñ tubaa soxna Faat ja loolu tax na warlu woon na juróom benn weer yu nekk mu jox ko xaddiyee sëriñ bi roye ko ci salaatu sitta bi mate sitta saxloon na ko tegoon na fu kawe lool firnde ji mooy xis sa photo photom bi ñu xam rek ndax benn foto la am ku ñu wax sëriñ Seex Soxna Mbàkke moo ko sakkoon ci moom moo soxna Faati ja ma nga Daaru Salaam su ma sañoon nag nga amu photo ndax jamono ndax ndax jamono ni muy dox ma ne may saa dem ba soxla ko waaye moo leen sëñu koo def te amu ci ndigal soxna Faty Dia def naa foofu ko ci taalibe fi nii amut sama classe gi moom eh, lu la ñuy tàggoo xanaa lu rëy rëy lay doon waaye foto képp nga ne faaw da nga ci am ndigal sa sëriñ door ko def loolu def naa kon ku ko dab ci taalibe amut dem ba am ca ndigal soxna Faty Dia ñu door woo ab photogramme mu foto ko foto boobu képp la moy mooy bi ñu xam nii ñaareel bi xiisab ku ñuy wax màgga sekk màgga sekk kawlax la dëkkoon dafa doon ko mën a jàng lool ko mën a jàngi way soxna si daa ko jàngaloo soxna ja daa ko jàngaloo lu bari bi soxna may xëy siyaara ji soxna ja dégg muy jàmban màgg sekk na màgg sekk day ay su ma ko mënoon di gis man damaa nam am njàngam soxna may ba mu génnee ñibbiwut këram dafa daal di jubali Kawlax ndax da rek soxna Fatou di ko jàmbat rek ba génne dafa daal di jubali Kaolack jaar yu këram daal di jubali Kaolack wëri màgg sekk ba gis ko ne nag mënuma laa ñàkk yóbbu Tuubaa am yum ko jàmbat ci yum war a lijjante yooyu soxna soxna daal ko fajal lam doon jàmbat lépp bëgg a sàkkat lay mu ne ko daal ba an dem Tuubaa mbaa def na ni ñu defam xar rek fa doon yóbbu moo xam ne caaxaan nag la la la doon na ko ànd ak mu ñëw waaye dana ko duma dem ci soxna soxna Fat jëm mukk naa ko naa ko màgg sekk leen moom koy ànd dem mbaa fa doon lu yóbbu rek kon day firndeel taari bi mu amoon ci digga ma soxna Fati ñetteel bi soxna Fati mu ndumbe mbokkum daaraan la woon ci Daaru Salaam mooy waajur sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Modou Mamoun soo mi dafa yónni bi soxna Awa Touré wala soxna Fatima Ndoumbe ne ko demal wool ma ko xam naa soxna Euh, euh, aw xaw desee dégg li ma wax defe na soxna Fat la ko wax de soxna Fat Ja ne ko ñëwal wuyu soxna may mu ne ko waaw ah, maa ngi ñëw bi ñu dikkee ba son soxna euh, may yéeg ne soxna Fat Ja li dal di jug ca saas lam njëkk a jotal la fëkk teg ci bopp bi solti daal sax dox ci naaju dafa dajante soxna Fat Ja mi ngi doon ñëw mu daal sukk ci kanam mun tuubal ko jégg toroxlu lool ca loola ne ne ko damaa jóg mu ne ko moo ne moo ne sa taalib baay dong laal sañ nga maa woolu nga xam ne ñoom ni ñu meloon ak nañ doon war maalante ak nañ fonkante woon waaye taalibe googu lépp soxna Faty Dia moo ko ci tàggat yar ko ci xam nga moo soxna May moom soxna Faty Dia ne ko ñëwal gunge ma ma doxantu ji loolu daal salaam la woon mais nee bay bi dégg saxaar gi riir soxna Faty Dia summi daal ne soxna May summi say dàll nu màgg saxaar gi jóge ci Sëñ Tuubaa ñoom ñaar ñëpp ñu summi seen daal ba saxaar gi romb leen ba dem. ñu door sala seen dàll foofu def naa ak taalib ba tey foofu eh, kenn àggugu fa sumbil sumbil daal ak ay saxaar ak i oto moom ñun àggugun foofa kon loolu ak taalib mënu ko weesu ak bëgg Sëñ Tuubaa mënu ko weesu waaye Sëñ da ko fonkoon lool moom soxna Mbay soxna Faati Sàmba Jóob ca waa Basax la yi la bokkoon da wax ne soo na Mbay nim sare la xolub sëriñ bi ak nim amee ngërëmam mosumaa gis ku mel te waa kër gi ñëpp maase woon nañu ko xam gannaaw gane sëñ Moustapha May am na lu ko daloon ba ñëw njaareem sëñ bi daal di dig ne nañ nañ daal di wuti lu ko faj waaye bañ koy ko faje sëñ bi mooy ñëw teewal boppam di ca soññee ci gën a te loolu boobu la boobu la njëkk boobu la mujj lépp kon fonk fonk gu ko fonkoon ak fa kay fu ko tegoon bi soxna si dem daarul moxte itam sëñ bi da ko boole ku ñu wax sëriñ Mbacke Samb mooy bàyyi Moustapha Samb mi nga xamante ne sëñ Abdou Khadre mu daa ràngoo téere yi ak maxtu yi moom la ko booleeloon ngir bu demee li li nga xam ne liggéeyub góor la eh, mu di ko mu di ko ca féete waaye ci mën a jàngale soxna May bi bi fii sëriñ bi jógee dama ne ko yoola mu sëñ Tuubaa booleel da ko booleeg sëñ Abdou Khadre mu jébbalu ci moom ne ko jigéen du doon sëriñub góor tawfeex yooyu mu am ci sëriñ bi yëpp nag kaamil bi mu ko jébbal bokk na ci li ko sabab keroog bi mu ko jébbalee kaamil bi sëñ bi dafa dafa digle ñu daal di koy daajal ab baraag ci biir kër gi ca saasa te boobu baraag moo doon ay taax yooyu jamono dikkoon ko dinaa leen tudde doom te def na ko teg ci ne ko yomal xiyaam ku la fa neex nga ràmm ko yóbbukal jànn loolu lépp day feex yu ma ci sëriñ bi waaye gëm gi ma gëm sëriñ Tuubaa te xam ko tam ca tawféex ak ak ak taalibam tax na ñem mag sax du sol daal ci seen seen biir yi nekk ba ci sëñ Abdou Xaadir mi nga xam ne lim ko mage bari na lool ndox mooy seen son may taw sonna aminta son Abdou mooy caat ma kon doonoon ndaw lool ci moom waaye bi ci sëñ Abdou Xaadir daaw sol ay daal ay daal ci biir néegam kon lépp war ma lépp sëñ Tuubaa la doon xool ci ñoom moo tax sëñ Moustapha daana ko tey kër sëñ Modou Moustapha loolu sax bu ñëwee bu ñëwee ci bu ñëwee ci diggam ak bokk yi la la ñuy gën a xuus foofu waaye kaamil bi ne tawféex la ci am joo xam ne euh, moom xanaa lu ñu fàttali waaye ñëpp dégg nañ ko ba tàyyi bi mu nekkee ndaam di di jàng dafa teel a mokk lool bind na sax njëkk na njëkk na bind kaamil ba ñëwaat sax sëñ bi naan na delluwaat ma fa diir ba ba alxuraan ji gën a gën a gën a rattax rattax lool bind beneen in indi jëbal ko seen calan calan ak tawféex yooyu amee ca daje ndawi Cheikh Sidiye fa ñëwoon te fekk ba mu nekkee gànnaam mu bi Cheikh Sidiye mel ni ku ko daan xàllantoo ci jon doom jigéen di mokkal alxuraan ba bind kaamil te loolu boobu yàlla mayu ko ci saaxir te moom lu baax lu nekk su sañoon bu ko njëkku tamit bokk ci ña koy am loolu na nit tikki ci xolam bi moo tax ba ko soxna may jébale kaamil bi la ne woon sama tikki xol ja may mënu yam ko tekkil eh, tas nde gane Cheikh Sidiye ñëw fa moo soxna may jox ko gàtt ak i àndaar ci dugub ne la ku la dimbalewul ci kaamil bu mu la bind bu mu la dimbale ci reer wi toog la ci ab ne ko ku la dimbalewul ci kaamil bu mu la ci dimbale kaamil ba kenn dimbalewu ko ca nga ne pem ko ndax boobu machine amagut boobu soq kuur ak a gën lay doon soq foofu kuur ba muy sunguf mu mooñ tay ko muy ay cere mboole ko gàtt ba togg muy cere ju mucc ayib mu jox ko gan yi xewlu ba xool seen xol sedd ba laaj leen ñu ne ko ñu ne ko macha allah tabarkalla mu jox la kaay mu yéemu mooy leen ki bind ki ki ki ki togg reer bi ngeen reere mooy yaxal kaamil bi loola lam ci bëgg wane mooy kele day mënoon alxuraan waaye ku ko bëggoon togg loo cere da indi jafe-jafe man nag mën na lii ba noppi mën na lee loolu sëñ <laughs> euh, Lamine Diop wéyru ba waxoon neex la jigéen ju man cere man ceeb xam arab man a way man alxuraan bindikaay mi soxna may du keneen moo tax kon lépp dafa la fa boole la la boole woon fànn ko foo ko làmbatu daj ko foofu waaye ko mën nañu fa foofu ba desaat ñëw ci jërëjëf eh, eh, jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Mor Soxna yaakaar naa ne bu fekk dañ doon laaj laaj kan mooy soxna may li nga ci jot a rek doy na sëkk ndax ay bind lay doon yoo xam ne benn bu ci jël dana la doy bind ci nga jàngat ko wala nga roy ko ci moom waaye euh, am na solo lool ci bi nga indee ay way waajuram nga xam ne moom mook sëriñ bee bokk lépp bu lu sëriñ bi doon rek la soxna may di doon ndax bu dee mooy waajuram di doomi soxna Aminta Buso kon sëñ bee nijaayam soxna Aminta Buso it di doomi sëñ be kon mook sëñ bee bokk ndey ndax mooy doomi nijaayam dañuy wax ne doomi nijaay mooy ndey doomi bàj bàjjan mooy baay waaye bu ñu demaatee itam ci soxna kan ca Balla Aysa la ñuy delluwaat nga xam ne amut nenn nu soxna sëñ Tuubaa mën a def ba du rek jur soxna may moom nu mën a doon rek di way juru soxna may kon loolu doy na ci ak bokk waaye yàlla dimbalee ko it defal ko taw feex ju toll ne bi sëriñ bi demee ci géej gi ba fees dell ak yàlla nee na ba may dem ci géej gi damaa mel ne ku jub aw nit laj ko lañ xeeñ leen kenn ku nekk wut si la di la ñaan si laj ko te booba amoo laj ko lañ kon ba muy wuti laj ko ba am ko bi mu amee laj ko nag la soo ko ak si jóge ci géej gi fees dell ak yàlla nga xam ne booba adduna ak àllaaxira tege na ci loxoom mu jaarit gànnaar xamaloon bopp xamal nit ñi it ne leen ku jàpp ne samak dem gànnaar dem ci géej gi yow sa njortu rafetut te it ab dof nga gànnaar moom wutiwuma fa lenn lu weesu dem di jëli pay gu ma fa yàlla fay kon la ne woon ca naar ya récupéré na ko soog a jóg la ne woon ca bano Israël jëlee na ko ci géej gi li ne woon ci naar yi jëlee ko gànnaar mu des lan la defoon ci tukkulóor yi mu wuti ceyen yéen jolof ba mu demee nag la won ca tukkulóor yi nag la teg la tegee ci loxoom muy soxna may Munatu Mbakke moo tax feeñ jamono soxna may mu dëppale ko ci képp ku bëgg a jub da ngay wuti yàlla alhaadi ak allahu moom boo bëggee jub rek wutil yàlla waaye ku wuti wut yàlla mënoo fexe ba jub moo tax yaari xasida yooyu di seexub soxna may sun borom it defal ko ci la nga xam ne bu doon benn benn na wala naqar wala ñëgg-ñëggi xool sëñ Tuubaa am na ko ca naar ya ndax la la woon ci naar yi lépp daje na ko ci loxoom mooy loolu moo amoon suñ borom faye ko ci soxna may mun a waaye xoolal ñett yi nga xam ne ci la ci la soxna may di wàccee boppam di jëme di jëme boppam ci yàlla di ko wàcce ngir yéeg jëm ci yàlla mooy li mu waxal boppam ne ko jógal te sadd ay bayit ndeem am nga ci ngor nga xam ne kon jàppe na ne moom lim nekk ñàkk ngor rek koy teg waaye moom ku am ngor moom dangaa war a delloowaat sëñ Tuubaa njukkal ku yedd sa bopp moom ba jàppe sa bopp ne man mii daal góoreewu ma foofu doy na ci ak toroxlu beneen bi ci mu jàpp ne daa defut dara ne ne ne yaa ngi ne wétt te warut xam nga ku ne wétt moom mooy ku defutu dara moom famille muy yéeg jëm ci yàlla jàppe na boppam ku defatul dara mu ne ko yaa ngi ne wétt wérut loolu ci xeeti toroxlu yaakaar naa ne eh, nitu yàlla dëgg moo mën a toroxloo noonu jëm ci boromam ndax noonu rek la sëñ Tuubaa doon defee kon soxna May ak toroxloom jëm ci yàlla kawe na waaye bayit yi nga njëkk a indi ak yi ci topp yaakaar naa ne la naaru gànnaar ba waxoon ne dafa ñëw Touba xelam dem ci Serigne Abdoul Ahad mu ne diggoon na ma dara naa fa dem ngir mu faj sama yitte mu dem kër sëñ Abdou Lahad fekk mu xat mu ne kon naa jaar ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma mu jaar ci sëñ Cheikh fekk ñuy suba la màggal munta àgg mbaxanam sëñ Cheikh mi rek lay séen mu ne kon naa dem ci soxna Astou Gawane nee bi ma dikkee ci soxna Astou li ma ci fekk ci ay ponkal ñu wër ko mënumaa seen soxna Astou Gawane lu dul léeg-léeg ma seen rabal bi nee na mu ne cey sëñ Touba jigéen amul jot góor amul jot waaw waaye loolu mënees na ko jàngewaat ci soxna Maymuna bala ngay riir wuti sëñ tubaa négal ba romb gaayam yi ba noppi gaayam yi du ma leen wax jigéenam njabootam gu jigéen gi laay wax négal ba romb leen ba noppi yaakaar naa ne lii soxna may xam ak nem mel ci digganteem ak boroomam ak eh, li yàlla def ci moom mm, bu doon ci mëneen réew dañ naan jigéen ju tarix taxawal ab tarixa fay ne waaye gis nga ko ka ko yàlla booleeloon ba mu demee ba gisatut ba nekkatut daf daf ko wax ne ko nag kaa ñu dem nga dem jébbalu ci sëñ Abdou Khadir ndax ji góor du jébbalu ci jigéen xoolal googu ragal yàlla nga xam ne fii nga xam dañoo toll ci campagne kon soxna may jafe na sëñ Bousra yaakaar naa ne jot ngaa dégg fi sëñ Mor jaar dama lay bàyyi rek nga ñëw fi eh, yaakaar naa ne soxna may kenn du la ci laajati benn benn côté dégg nga fi sëñ eh, sëñ Mor jaar ci ak bokk fi am njàngam ci ak eh, ak taalibeem digganteem ak Serigne Touba ba àgg ci loolu mu doon jëflanteeg soxna soxna Fatidia nga xam ne daa dégg soxlaam képp waaye yónniwu ko ci jàngkat boobu mu taal otom dem Kaolack jëflanteeg jàngkat boobu yët ko soxna ci dégg soxla sëñ bi képp la. bokkut ak ñi nga xam ne señ bi da daan yónni ñaan sëñ bi li muy yónnee tey ji daa xaw bari ba yaakaar naa du man a sotti kon yaakaar naa mu bàyyi laa kàddu yi foofu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuhal mushahidoon alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare bu baax di siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moom la sëñ bi donnaloo PM bi ak yoonam bi ci jamono yi ñu toll ñaan mu yàgg ci loxoom lool ak mbooleem rakkam ak lim fi dese ci ay baay tax ci kër yi sëñ Mbàkke Moor yi ak sëri bokki sëñ tubaay ak ñi nga xam ni ñoo di am toppam ñëpp taalibe yeeg seex yeeg murid saadix yi di siyaare bu baax a baax sëriñ Abo bi nga xam ne tey jii mooy kilifa néeg soxna May Munatul kubaab bi di nuyu doomam yi nga xam ni ñooy doomi bokkam yi di ñaan yu yàgg ànd ak moom mu yàgg fi lool ak jigéenam bii di soxna Yakkale Mbakke di am mbégte nag bu baax ak cant yàlla ci ëtt bii nu toog di ñaan ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa borom ëtt bii di sëriñ Seex Mbakke may munatu yàlla dolli ko ay leer te taas ñu ci barkeem te yàggal fi doomam ji te yàlla defal ko mboolem ñi mbokkaloon soxna may ñëpp euh, di sant sëñ Mor mii ci nii mu tërale waxtaan wi muy def ci soxna May tàmbalee ko ci nasabam ak ci njàngam ba fii mu ci yegsi muy programme bu baax di tëralin wu rafet macha allah te ñaan nga yeggale ko ci jàmm ndax lu nit baax baax lu nit tedd tedd war nañu di ko waxtaane nit ki bu fekkee duñ ko fàttaliku duñ ko waxtaane day mujj mel ni lépp ak lupp rek. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, lépp lu ma sa dégg ci moom dañ ko téye ña ko ña ko déggoon bind ko di ko jokk jolaate ba nu jot ci nun ñii alxuraan mi itam bind guñ ko bind ak saytu guñ ko saytu moo tax nu fekk ko fi dara dara raxu ko bu ko yàlla dee wattu te wax ko itam inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafisoona da koo def ci dënn yi def ko ci kayit yi rek waaye bu noppee nekk ci dënn yi noppee nekk ci téere yi day mujj mel ni lépp lépp lupp rek sëriñ Tuubaa bu tedd mii nafaana allahu bi yi téere yi ñu bind ci moom am na solo lool ndax ndegam ña jamonoonte nag ñoom moom farlu nañu ba lépp lu mës a xam ci moom bind nañ ko ci ragal yàlla ak ko maandu waaye ba na si yaa ngi ci dégg lu ne naka mu ak suñ ko bindul woon moo tax bi nga xamee ni Cheikh Mouhamadul Bachir bind na ci moom téeréem bu tedd bii di Minanul Baaxil Xadim fii siirati Cheikhil Xadim dafa am benn naar boo xam ne da cee def benn taqriz ni xadisun law annan mayta nuuji bi ba'dihi la asbaha xayan baadama dammahul xabru am ko wax ne xadisun lawlaahuma urifa alxadimu kama kama shifa lawlaahuma urifa nabiul mustafa kon lii lu am solo la te waxtaane ku baax dafa am lu muy def ci xolub aji gëm ndax doomu aadama mënut a ñàkk ñaar ku muy roy ak ku ko yilif faaw nit am mel noonu ngir doon ngir doon nit ku baax nit faaw mu am ku muy roy ci jëfin ak waxin ak doxalin faaw mu am ku ko yilif ku noppee am koo roy noppee am ku la yilif noppee baax ak koo mën a doon te roytee fa kulla naqus aleyka min anbaai rusli maa bi sabitu bihi fuadaka sayyidatuna Maymunatu sëñ Moor nii rek la war a mën a mel ndax dafa génnul sëñ Tubaa fenn sëñ Tubaa di ndeyam di baayam di mbokkam te damay faral di wax ni ku bëgg a jur sa bopp da ngay jël sa mbokk soxna Aminatu waajur mu tedd ba bokk soxna May li mu bokk ak bokk ak sëñ Tubaa li mu ak moom ba noppi bokk nekk ci kër gi nekk ci taalibe yi te sëñ Tubaa day wàccoo naa ñëpp. ba ci doomam yi sax ndax kenn koo xam ne kii mën na cee xas moroomam amul ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek dañoo nawloo ci ña leen jur bu ñu xamoon doomam yi ku ci gën ndey rek mën a waat ku ci gën waaye ñoom ñëpp ci saalihaat yi leen la leen tànnal moo tax sëñ Mat Lamin Gay Firdaws su baax ma daana wax ni doomi sëñ Tubaa bul boot kenn di domp ka ca des <laughs> ñoom ñëpp a nawloo kenn ku ci nekk da ameel ci jëmmi sëñ Tubaa ji jëm ni cërub yaram na may mii nag cër bu diggu la ndax tawféex yi daje ci moom macha allahu dafa bari lool dafa bari lool waaye tawféex gi ci jëkk daal te gën cee yéeme mooy doon doomi sëñ Tuubaa ju jigéen di doomam sëñ bi jur ko ci wàll yëpp joxe ko mu nangoo jàng yàlla defal ko tawféex mu teel a wattu alxuraan ak at moom mi mu feeñee di atum haksashin nga xam ni dégg sëñ bi ni du xooli bi rabbi mahka min qabli haksashin wayan xool li xëyri laa li nax wi mu wobbi ko muy at moo xam ne mii at mu bari lu ko sëñ Tuubaa di tudd la mu feeñ ci at moomu at mi itam bari ñoom seexoo lool waaye xasida yooyu nga ci waxi doon xasida yu yéeme genn ku ci nekk rek da ngay ci sëñ Tuubaa wax muy ihfaz li wajhikal karim kulla man xafizatil abyaat fi kulli zaman li yastajib rabbi wa wajih fi alan wa sirra iblis li xayri bi waran lakk fuwaadi yaa ilaahi idmaan wa kulla man xasada xayraka fa an ihfaz ilaahi zahiri wa ma watan min al mafasidi wa safi lil atan hab lii duxoolan fiihi maa ka zaa aman fil aali wal maali maalika saman muy allahu ga ak alhaadi gi ci topp muy alhaadi te baatub haadi lépp a ngi ci ndax bi suñ boroom wax ci alxuraan ci sootul faatihatul kitaab muy saar wi nga xam ni moom ku ko jàngul doo amuk julli bi mu ne ihdina siraatal mustaqim lam ca teg mooy siraatal lazina anhamta alayhim képp ku la ne aw naa yoonu jub rek ne ko am nga aw nga yoonu xéewal boo ko wàccul boo yàkkamtiwul boo ko wàccul rek aw nga yoonu xéewal ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anhamta alayhim yoon wi gën a gaaw ci xéewal mooy yoonu jub rek boo ko wàccul kon soxna may ñu fàggul ko aw ci yoonu mu saraatul mustaqim jëm ci yàlla boroomam lii rek mooy tënkub ñaari xasida yooyu mu xam ne nag bëgg baayam lool bëgg ngërëmam lool bëgg lu ko neex lool di ci xëy di ci gont xam na ne munta am ngërëmal sëñ Tuubaa ci lul rek jaamu yàlla ak bëgg yonent bi ak fonk diine ak bëgg alxuraan muy jigéen ji jëkk a teg ab kaamil bu mu bind ci loxoom ci loxol sëñ Tuubaa loolee rëy ci sëñ tubaa lool ndax sëñ tubaa alxuraan rek la daan laal ci loxoom moom la daan téeg bopp loxo moom la daan tàllal loxoom maddu ya dii li xayrihi indi junoon wa madd li xayral xalaali wal funoon mu teg alxuraan ci loxoom sëñ bi defal ko teraanga yooyee booba muy jafe daajal ko néeg dig ko yaari yëf muy tudde ko doom ak warlul ko ak texe ak di ramu te sëñ tubaa lim la dig moom moo gën a daal sa xel ni ko Cheikh Mouhamadul Moussa waxee ci lim teg sa loxo nga jàkkaarloog moom ndax moom moom moom sëñ Touba moo wax ne mboolem li ma man fay laa ci dàq mu digg lool ci xalub sëñ Touba bi bokkam yëpp xamee ni mel ci sëñ Touba it noonee la ko yàlla def ci xol yi bokkam yëpp ñi mu mag ak ñi ko mag ñëpp bëgg soxna May ñëpp bëgg ko góor ñi ak jigéen ñi ñu bëgg ko lool fonk ko lool sopp ko lool kenn ku ci nekk def ko ni sa bopp mbaa mu gënal la sa bopp. ndax sëriñ bi moom boo ko joxee sa bopp ba mu jeex boppam la lay fayee waaye ànd ak loolu lépp ci noonu nga ko waxee musta ñàkk kilifa jël Faat Ja mi soxna Faat Ja mi nga xam ne mooy taaw baayam sëñ tubaa jëkkoo gis ci doom te sëñ tubaa moom ab sampam moom tegaleem njablu ndablu jëkkër day dëgër soxna Faat Ja moom moom la defoon kilifa ak ñëpp waaye soxna may nangu loola lool def ko muy kilifaam def ko muy wasilaam def ko muy xudwatoom déggook moom lool ba lii nga ci wax am nga xam ne la photo képp te amu ci ndigalam ci sa mag yoo xam ne yéen bokk baay nga am kër mu am kër nga am boroom kër mu am boroom kër ngay kilifa muy kilifa waaye teewul sa nangoo def dara ci boppam lu ko soxna faj ji digalul loolu it ñëpp war nañ caas jànge loolu jànge nangoo am sa kilifa ka yàlla teg sa kanam nga def ko mu sa kilifa te yàlla tax loolee dalay yokk waaye du la wàññi ak bokkam yëpp na góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp bëggoon soxna may cërub góor boobu nga xam ni moom la sëñ Tuubaa wax ni cërub góor lañ ko fàgguloon moo tax mu defee fi góor def na fi jigéen def defee fi jigéen weesuwul jàng na liggéeyub jigéen muy togg ak tont musa ñàkk kilifa dem na kër am fa ay njaboot yu baax yu barkeel ñoo xam ne ñii seen bokk yëpp nawloo nañu leen soxna may tànneef la waaye doom yi mu amit tànneef lañu fenn foofu ci nekk ka yàlla jox Ah, am na ca lam bëggoon lépp boo demee daarul moxti gëm njëkk a dem ci seex Mouhamadul Mouhamadul Habib nga xam ni moom itam kenn rek la woon ci doomi boroom daaru yi bokkoon ca doomi mag ya te féete woon ak sëñ Touba bind kaamil yu limu ba mu fa demee kam fa am muy sëñ Moustapha mu baax ma yal na yàlla yeesal ay leeram ba mu feeñee rek la ko yàlla def muy kilifa. bari woon na fi ay bàyyi loolu nekk seen kanam waaye ñëpp kilifa rek lañ ko defoon bàyyam magam magami ko magoon ci daaru ñëpp kenn ku ne xamoon na ni ngi di ceerno boo ko fa yàlla jëlee itam mu dem kër sëñ Mor Soxna mi nga xam ni ku jege sëñ tubaa ci wàllam yëpp di doomi sëñ Jaara ñam fa amoon xamoon nañ leen fii ci tuubaa gii muy boroom kër gii ak sëñ Mor mbakke mu baax ma ak seeni jigéen ñu ñoo xam ne amoon nañ fii seeni yaay waaye dañ leen a bëggoon lool teg leen ci kaw néeguñu leen woon a xool ci xam-xam bu sell ak ragal yàlla ak mat lañu doon kenn mësatul a gis ñu mel ni ñaari doomi soxna may yooyu fii ci Touba gi mu sëñ seex boroom kër gi mu sëñ seex may munatu ak sëñ moor mu baax moom mee di rakkam waaye ay doomam foo leen fekk dañuy nangoo am kilifa lool moom mu demee kër Cheikh Mouhamadul Mamoun tam macha allahu taala ñam fa am di ay sang lool di ay tànneef. góor ñi ak jigéen ña loolu la ko yàlla defal moom soxna may euh, sëñ tubaay taqale woon kook boppam miinale kook boppam daan ko def loolu jëm ci boppam daana ko toggaloo ñami boppam am na bi sëñ Mor may di ma nettali ni ni dafa dafa am bis sëñ sooy bu nuy reer man ma sëñ Mor euh, sifal nee na ma jël ñeex mi sotti ci cere ji fekk yàllu naa wax naa bisimilah mun ma sëñ Mor waxal bisimilah nee na ma ko <laughs> wax naa ko de Mbàkke nee na sëñ Mor daal di may nee daal di may dóor nee ma barkeeloo ko ci dóor ba sa sëñ Tuubaa dóoroon sa baay sa yaay ndax da koo ma sa wax ni ko soxna may sifal ma fii nee na soxna may sa mu ne ko may mun a waxal bisimilah nee mu ne ko Mbàkke wax naa ko nee mu dóor ko ne ko wax ko ca kaw <laughs> waaw waaw kon taxaloo ko na ko boppam di ko def loo yoo xam ne ci boppam la jëm te sëñ ni ni ni mënee su koo takk sax moom mënee su koo takk fenn waaye sëñ Mor eh, sëñ soxna may mënu su déggoo woon naag sëriñ bi dégg ko bu baax bëgg ñi mu ko bokkal ñëpp xam naa ne loolu da nga ci ñëw ci ni mu fonke woon mbokkam yi fukki fan ak juróom yu ne mu gane den leen doomi sañ tubaa di leen way de seet yi sëñ Touba gënoon a bëgg ginnaaw alxuraan muy shahru ramadan shahru rabiul awal di leen way ay way di ci def ay taalif di ci joxe alalam ak tabam ga ak jubam ga ak dëddoom ga ak bëggam ga alxuraan bëggam nga sunna bëggam nga lu baax bañ gi biddaa bañ gi yéefar yooyu yëpp lu ci nekk lu yaatu la ma bëgg rek nga yeggale nii nga tëre waxtaan wi xam naa ni incha allahu buñ bëggee xëccoog waxtu wi nga doxal mooy daal di gën ndax dinañ ci mën a jariñoo ndax ku dégg nii nga tàmbalee waxtaan wi mu doon mu aalaja boo xam ne bii lu ñu def ay xut nuxaat la ay tomb yaakaar naa ni boo boo ko wàccee rek dana am solo loolu Mbàkke yàlla na ci yàlla defal doole defal tawféex te ku fi teew rek yàlla faj aajoom ci barkeb sëñ Tuubaa ak soxna May bisimilah tafaddal mashkuran. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Bousra ñu wax ne <clears throat> lu baax su doyee ay nit seq ko ku nekk yéene ko sa moroom ku nekk mën nga caa jariñoo te loolu feeñ na ci waxtaan wi mel na ne li sëñ moor di wax bëgg nga cee dolli ku bëgg cee jariñoo waaye yéene nga ñiy seetaan ak ñi déglu it ñu jariñu ci sëriñ Mor it day mel ne li muy wax jàpp na ne yaa ko dàq ba tax mu di la ko jiiñ waaye loolu li muy teg tegtale rek mooy doyuk li ñuy wax ndax nee nañ dafa am ku toog ci wetu sëñ Fallou ne Touba ji doy nañu doy nañu doyloo nañu ko da cee teg ne doy loolu day jafe na sëñ Fall na ko taxawal foofu Touba doy la yomb na nga doyloo ko yomb na waaye nag doy loolu day jafe na nee na ko looloo jafe li nga doyloo doy moo jafe ak loolu mooy taw tawfeex liñ doyloo daa doy ndax nit doyloo na la doyut kon alhamdulilah rabil alamin bi nga xamee ne soxna May mi ñuy waxtaanee wóor nañu ne yéen ñaar ak yeneen i borom xam-xam kenn mënu ko cee jeexal ndax géej la ci ci ci dundam gu gàtt mel na sëñ Mor ñëwoon nga ci. ndax li ma bëgg ñu exposé ko mooy buñ ne sëñ tubaa amul morom dañuy indil beneen waaye boo xam ne moom sëñ tubaa ci turu sëriñ bi rek lañ wute wala mbubb yi ñu sol ne nu róolewut sax kenn mbubb sëñ moom yàllaa ko ber ñu koy wutal morom ñëpp mënuñoo fexe ba gis kenn koo xam ne moom sëñ tubaa ñuroo ñoo noroo dugub dogub mbubb ñi xam sëñ tubaa ñëpp ci benn façon mbubb lañ ko xam te ku bari woon yére la waaye nag baatub sëriñ mu ne su ko wooyee lu sëriñ ndax tu gépp sëriñ rek lañ xam ci diw kon sëñ tubaa ni nga xam ne boo demoon ca daral ga man faa jënd nagu téeméeri junni wala nagu million gis fa nag woo xamante ni boo amee quatre-vingt mille francs am ko teewut ñooy bokk nag tur woowu rek moo ñu gàllankoor ci sëñ moo tax ma bëggoon nga ñëwaat ci soxna Maymuna bu fekkente ni bi dañuy jaay ab xam ba di ci natt sëñ Tuubaa wala ñuy jaay ak njub ba nekk sëñ Tuubaa wala ñuy jaay ak ragal yàlla ba di natt sëñ ma bëgg nat mbub moomu bala ñu koo nattal sëñ ñu nattal ko soxna May ba noppi ñëwoon nga ci way yi nga xam ne doon na ko woy sëriñ Tuubaa way na yonent bi alayhi salaatu wasalaam way na weeru koor way na weeru gàmm damaa bëggoon nga ñëw ci way laata ngay ñëw jaxasoog yi nga xam ne moom la jaxasoog ay bokkam ba ñu xam ne kii moom dégg na arab am na xam-xam ragal na yàlla ci biir ay waxam dëgg na it wolof yi nga xam ne moom lañ naam ndax way na arab way na wolof te réew mi moom ci ay way rek la ñuy sukkandiku nawee ci nit ma bëggoon foofu nag làmb jooju moom tey duma ci dugal sëñ bi soxna may rek laa ciy dugal <laughs> jërëjëf sëñ Fall jërëjëf sëñ Bousra ci euh, lu nu am solo ni mu dikkee eh, ci rafetal gi ak jotal gi waa soxna May mën na maa wax ne day mbërum Sëriñ Tubaa mbërum Sëriñ Tubaa la ci làmbi xam-xam ci làmbi way jigéen ji way defe naa ci moom rek lañ ko ci moom lañu ko njëkk a gisee eh, bu njëkki jigéen dañoo jàppoon jigéen moom su ma ne liggéeyu kër rek baax na ba tax ko jàngal daa wax na njàngu jigéen amul solo te fekk li mën a ne ci góor lépp war naa ne ci jigéen te moom jàppoon ne góor a jigéen amul teqale ci xam-xam amul teqale ci jaamu yàlla amul teqale ci pas-pas ak doxin loolu yu néew néew ya nga xam ne moom la seen teqali bind mooy la ko waral moo tax sëñ ma bañ njaay sëñ sëñ bi ko mas di laaj am doom ju jigéen ju ko laaj ne ko xanaa fi ne war naa war naa war naa mat dara mu ne ko ah, su doon góor dee mata daal mu ne ko ba muy jigéen nag mu ne ko tuub naa ko de mu ne ko ñoo yam de ñoo yam de ñoo yam de kon dafa yëgoon ne ko jigéen kon responsabilité góor la am ci jàng la mu war a jàng xam la mu war a xam moom nag loolaa tax mu teel a sóobu ci yoon woowu ba mu jàngee alxuraan ba noppi xam ne alxuraan mokkal ko baax na lool waaye doyut yóbbu ko gedde mu jàng xam-xam ba géeju ni ci góor ñëpp géejoo nekk shaayira nag boo xam ne bu ko jàngal xam-xam sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso moo ko jàngal ba mu ba mu géeju ci xam-xam bim ba mu ba nekk nag ba nekk nag aalima ci fànn yëpp ci la kon nag léegi ak taalibe bi demal ci soxna fa dem mu jàngale ak taalibe nga xam ne kon jàng na fi ñëpp jàng ba am xam-xam waaye nekk sha'ira boo xam ne ku mënoon a way la ci fànn yëpp moog Sëñ Musaa Ka dañ daan daan jollu sante waaye jox Sëñ Musaa Ka Sëñ ko mu tontaat ko def na am na def naa mi boo xam ne si Abdoulaye Touré doon ko jàng wax na soxna Mbaye waaye lii tontu ko lii kasit ba ba mu jeex lépp loolu la waaye soxna Mbaye soxna Sëñ Musaa Ka jollu sante ñu jollu sante ci seeni ci seeni way mu jekkoon way lool nag lool eh, ni nga ko waxee way na ci weeru koor way na gàmm way na bis yi way sëriñ bi eh, eh, way dénkaane moom lim ci lim ci way kenn xamuñu toll ak ak way yoo xam ne fas kóllëre digganteem ak digganteem ak ña ña muy seqal la du ñàkk loo xam ne dañ ci du ci ñàkk loo ne xëy dañ ci ñëw ci kanam wane daal way moom amoon na ci ab cër lool Eh, mën naa ci benn fii rek boo xam ne eh, mi ngi ci doon way eh, sëñ xaas sëñ xaas dañoo jaxasoo woon lool lool lool sëñ xaasum ngeen ngi new moom sëñ Afia waa mi googu daana fi den lu bari fii mi ngi wax noo ngi sang sang bi seetub àllam gis fu ko neex mu toj ko def ko bu sanc ko daal koy tudde daaru rahmaan yàlla na fi sax mat fi ba tol ba tol nim saamaan barkab sëriñ Tuubaa la ñuy dagaane barkab sëriñ Afeek sëriñ Gaawaani na say xaasim Mbàkke tol nii baayam ta mel ni ñoom amina moo ki gaayam loolu defe naa am na te ñoo defal ko lu bëgg am ko teñ ko fatxu lu xew mu xam ko loolu defe naa ko xam sëñ sëñ sëñ sëñ xaas defe naa loolu loolu na bi jaaxi bàyyi taahirin wa qaasimi yàlla na sëriñ xaas mbàkke sax bil karami amina amina ndeleen amina yow Modou Mbeng war nga naa amina Modou Mbeng bëkk neegu sëñ sëñ la woon kon kon loolu rek wane wane kon ak ak ak mën eh, ak mën wayam eh, am na fu wax bismillaahi may dagaan ci xàqi mbër ma doon rañaan loolu sëñ Mbàkke la ci doon way sëñ Mbàkke Buso way yu yéeme la ko bisim bismillaahi may dagaan ci xàqi mbër ma doon rañaan jëm ci borom aras banaan ca leer ya buur màndal na ko tey maa ngi ñaan ca dara jaam def lu xalaal bàyyi xaraam te sax ci sant sunu maam mi yàlla jël seddina ko màgg nga lool fasa boroom borom yàlla sant na la moom yeneen ba yaa xañtu solom xolam ba mo moom seral nga ko ragal nga yàlla sàmm nga topp nga sunna maandu nga matal nga war ma wàcc nga seytaane jooy na raw nga ko tey bu sa sëy jikoo ka baax xam-xam bi moom xotti na baax lu xotti baax rek ay sa baax yow sa mboroom kenn déggu ko déggu ma fenn sa moroom yax ndax yow da ngaa gëm sa borom farlu ci waxtu yu juróom yow say ndigal matal nga ko maam Mbàkke mam Mbàkke kat yaay sunu mbër ndax ku la daane lay sa mbër te yaa ma daane man bu wér billaahi yàlla xam na ko aw tagga ngi hadiya la man maa ko def ngir sant la gëm la gërëm la wóolu la yaa xal la ngir yaa xal la ngir ma wone ko Maymunatu bintul Xadim mii taalibi Sayxul Xadim mi ngi ceewoon ndéewul ci moom baali amar gëne nga ko bu ñi eh, bu ñuy limo man man man sab teret bu ñuy li bu ñuy limoo man sab teret sama man sab teret bu bari koy taxaw teret ñëpp di saf seeni teret mu doy ma walli suuf mu doy ma walli suuf se ko moo gën bitig boo yor di jaay am njaay la moom am na nga jaay te ko ko jaay doo perte waay du lam bu mukk jàpp ko xam ne way la yu gudd a yoo xam ne loolu misaal la ci rek kon bu ñu wax ne kon ab shaa'ir la ko mënoon way te te dégg wolof eh, te mën arab kon lool lool loolu rek doy na doy na ci sëkk firnde way muy koo xam ne dafa jax woon ak mboolem mboolem eh, njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp àllaaxa bu dëgër nekkoon seen diggante dégg ma sëñ Modou Moustapha doy na ci sëkk firnde daana ko wal di ko téye këram ay fan lu yàgg lool tuddee na sox doom sëñ Fallou moom seen diggante dafa mel ni duñu ñu woon ñaar benn la woon moom tuddee na lu man ñeenti doom yu ñu xam moo ko bindoo it kaamil bii kaamil bi bi ñu gis nii la ko waral mooy kaamilam kaamilam bu tawféex yu bari ya ca am tax na gannaaw sëriñ bi ñu wër ko wër ci bagage sëriñ bi gisuñu ko sëñ Fallou ne ko kon nag faaw dangay bind beneen. ñu barkeeloo ko ca booba gannaaw gannaaw Sëñ te foofu fekk na mu meeg sax booba ak njabootam sax ñu bari mbokk lañu alxuraan nga xam ne ñàkk na jot lool ne ci kër waaye pëstéefam tax na mu def ko moo tax bi ñu ko bindee woon Sëñ Fall ko yóbbu ci barabu Sëñ Tuubaa ba teg ko fa ba fi ni nii foofa bii njaboot gu yar di ko barkeeloo ca booba lañ ko sottee gannaaw buñ ca amee ndigal waaye dañ ko sot dell del la waat bu ci saan ba fi na mag ci barabu Sëñ Tuubaa ba ndax dafa na alal la Sëñ la moom la ko bindaloon kon da ko dañ ko baamu ngir ngir ngir waaye mooy ñetteelu kaamilam nag boobu boobu bii mooy ñetteelu kaamilam sëñ Fall jox na ko warga mu naan fekk dafa waroon moo daa la xëye la jóge ànd ak soxna Daba Bousso dem siyaar ji sëñ Fallu ndindi fekk sëñ Fall tànkal warga ci yor yor gi mu xel lay jox ko mu nangu naan soxna Daba Bousso mi mu àndal di ko tooñ mel ni ko ku koy kale naa ko soxna may kat bi ñu jógee Daaru Salaam dafa xëy koor waaye ba na bu ñëw fi ñu ko jox ko muy naan soxna may ne ko kaas bii ma sëriñ sëriñ bi jox ci sama pas-pas li ma wóor ne mën naa ko cee jëlee amee ko ci xaw ma ba xam danaa ko jëlee ci koor gi mu déet te la ci mooy ba mu dellu Daaru Salaam da ko dafa àggale koor gi ci suusa mu fay ko te koor ngàtt nga la woon loolu day wane kon pas-pas ak gëm yàlla ak waaye gëm ci taalibe googu ba tey mas naa dem seere sëñ Fallou ci këram gi ci Touba dee ba ci ñaareelu kees gi fi mu daa teg piliyaan bi mu fekk ay benn benn di toog fa mu mu ñëw toog ci gannaaw piliyaan bi bokkatu noonu te nanguut ñu ñu ñu ñu yëglu ko maanaam nangu ko yëgal sëriñ bi mbaa ko ko yóbbu ci biir dafa toog foofu rek nga ne sëñ taal bu Bousso mi nekkoon gar mu ndaw moo ko doon nettali Eh, ma ñëw ne ko soxna si li nga def gàgg naa ci jaaxal na ma daal ndax ndigal sam fa toog am na ku bokk mu wàccuwaay kilifa gu ñëw daal di yëglu ñu woo ko ci biir màgg ji sëñ bi ñëw rombaat ko moom gisu ko sax ndax fi mu làqatu dafa dafa ruqe hmm. mu ne ko ki fi ñëwoon kat yéen a yéen yéen a li fi doon nga fi doon lu teewoon te nangoo ñu yëgale sëñ bi te ne bu la yëgoon ba tey woon la ci biir eh, mu ne ko Omar day loolu du ab gàkk du ab gàkk ndax man ak ak bokk dafa ma fee indiwul pas-pas moo ma fi indi kone nag ak lam sañ kooku ngay wax lim def da koo sañ man nag dama ko sañut sañu ma ko nga xam noonu la bàyyi ba sëñ sëñ bi génn ba sëñ bi génn sëñ Fall jox na ko doomam jum jum ko tuddee boole ci ay way waaye mbir doon loo xam sëriñ Fallou moo nekk nii day mbir doon loo xam sëriñ Fallou da caa wax ne ko ayatuhal kubra tulubi min rabbiki kawnatihi maymudatan bi jaahiki wa an yakuna baytuha maymuna fi kulli shay'in mutlaqan amina lu yeme la yow yow ku makki la wax ayatuhal kubra yow ko makki sàkkul ci sa boroom mbay mii doon ko barkeel ci sa barke ñaanal ci sa barke mu doon ko barkeel te am néeg néeg ba mu na doon néeg bu barkeel loolu mooy sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim képp la bokkoon ndey kon bu ne ñaanal ci sa barke néegu ndeyam barkeel kon ni sëñ Abdou Karim mel ñaanu soxna May fii kul shay'in mutlaqan ñaan lu boo xoolee Euh, sëñ Fallou ki mu doon ci xam-xam sëñ Fallou ki mu doon ci baatin sëñ Fallou ki mu doon ci cërub Serigne Touba ci juboo ak boroomam kon képp ku muy ba koy santuk ñaan tane ko ci ñaane ko ci sa barke ah, loolu am na am na lu rëy lu kon ñoom ñaar jaxasoo na jaxasoo goo xam ne ña xamoon ñëpp xam nañ ko daanaka doo doo ñaar benn la ñoon ñu jaxasoon woon lool lool sëñ Basiir noonu moom it tuddee na ko doom ki ko tuddee mook sëñ Abdul Hakim ñoo bokk way juru jigéen soxna jaxasoo woon ak sëriñ Basiir lool ñu bëggante lool jàppante lool fonkante lool joxante cër lool ku ne de xool sëñ Tuubaa ci sa morom ba bi fi jógee sax sëñ Basiir moo ko moo taxaw def naa moom lu a taxaw sax ndax lim ko jiitoo bariwut sëñ Abdoulahi moom dañu ñaar dañoo maase ñoo bokk menn at muñ gane àdduna ca ca ca ñoom ñaar ñoo njëkk feeñu ci yéen ni ñoom maasee na ni la seen seen seen lépp doone wan leen na daana fa dem mu téye ko lu yàgg léeg-léeg sama bàyyi ko kër gi dem tukki ne ko sa kër a ngoog bàyyi ko kër gi lu mat weer sonn ba tiife yor kër ga ba kër muy ñëw ba sax ab taawam far moom la ko tuddee moom sëñ Abdoulahi soxna may mi ngi ko tuddee mooy yaay Abdoulahi Mbacke ndaw mii doon meeru Mbacke tey sëñ Abdoulahat moom nee na ku ne ci noon bi ko xamee la weesu ngay rëccu waaye dootoo ko mën a muñ neen su ma ko fekk Daaru Salaam ca màngo ga yett yi lenn du ci des gannaaw jukkib alxuraan bi nga xam ne saa su nekk mi ngi ci loxam saa noppee waxee nit mi ngi jàng waxtaanu Serigne Touba yi ak la ñu def ca waañu waañu moo ko taxal boppam dara du ko ci ëmb xam lépp moo koy saytul boppam sëñ Saali neen da ci daan mere sëñ Blas sax ndax ne bi mu tàmbalee jaxasoo moom ba ba mënatu ko muñ saa yu lijjantee ba jot ci soxna soxna bi ne def na maa ci ne ne Sëñ Abdu Lahad ko ci man <laughs> te mu Sëñ Saaliw moo ko jox ñaanu Sëñ Tuubaa gi mu daa joxe fekk bi mu yégée ne soxna am na suuf soo xam ne ci Sëñ Tuubaa la jógee ak ñaan mu dem di ca tànk soxna may far ko may lépp nga xam loolu lu ko lu ko yéemoon la ñaan Sëñ Tuubaa bi moom laa def na saa bu ma sànn dajal suuf yooyu nga xam ci lay ci lay ci lay ci lay def ñaan di ko joxe day day tibb ci suuf sa jaxase ko ci nga xam ne ku ma sa am ñaanu sëñ Saliou jàppal ne am nga ñaanu sëñ Tuubaa gu jógee sëñ Tuubaa euh, sëñ Soy bu diiru li soxna May di nekk këram sax du fa dogal dara soxna May la ko bàyyee da ko bàyyi lépp bu fa amee ñaar ñu ñu jote sax daan naan xaar ba soxna May ñëw defaree leen ba ci xottu mbubb bi sax daa ko defal boppam soxna May la la ko daa defloo te da ko naan loo ma xotteel baax na loo ma xotteel da bëgg naa ko loo ma xotteel neex na ma. laa tax mu jébbal ko sëriñ Mor ci bëgg googu la soo may dafa am dafa ñëw bis ba dem fekk sax ba mu laata dana ko dama leen namm dama bëgg nga teg fii sa jog ko bu baax su ko dee ma tànk bi di di la ko namme sax ne ko da ngay sa tànk bu sumi tànk ba ba marqué mu baax na daal jël ak bool këpp ci sax namee kuppi xool cel na jëlee suñu Mor Fall jébbal ko ko loolaa boole sëñ Mor ak sëñ Sonia bi nga xam ne kon euh, loolu lépp ci bëggante gi ak jàppante gi lé loolu le firndale ci sëñ Abdou Khadir moom nim niñ bokk waaju nele seen lépp doone lenn soxna may da ko féetewoon fépp taxawu ko ci lépp euh, ba am na ci firnde euh, yooy yooyu sax bataaxel yoo xam ne sax xëy na da du waxi mbooloo waaye lu ne seq nañ ko sëñ Murtada yi noonu soxna may moo doon léppam soxna Jóob Mbàkke soxna Xadi rakkam seen marché doy na misaal naa ñëw ci seen diggante ñoom ci ci wàllu ci wàllu ci wàllu jaxasoo marché bi mu ko defal gannaaw bu mu wàccee mu soxna Xadi nga xam ñoo ñoo bokk ndey moo topp ci moom moom maay maami sib laxat mi dang dang dang ca xamee fu mu ko tegan nu ko jàppe bisimillahi ma def tey ay bay ci mbirum bintu xadimi rasulillahi moo waare cey doomi Bàmba ja tax siisam ya nekk ci moom xadijatun doomi tawfiix bis ba lay leere sëriñ bi moo soxla doomam woo ko kenn yëgul diisoo wala kenn moo sañ wax ji lay biire jumaada luulaa di yomal lax di fukki fan ak juróom yu teg benn bis lay woote tey waare guddig dibéer ga la woo mbokk ma Sayyiduna Sëriñ Suhaybu la wax mbootam ya moo waare leeral mbirum addunaam bàyyim yoral ko mbirum àllaaxiram bàyyiwul sax bor bu ñuy seere Daaru Xuddoos la ko baayam teeru ñëpp taxaw Cheikh Moustapha moo ko waajal jox ko ay yére Cheikh Moustapha nee na ko yaakaar mu Moustapha nee ko yaakaar Bamba ñëpp na dem Cheikh Fadiloo ko digal Cheikh Fadiloo ko dugal néegam ba muy reere nday xëy jàppal bayit bayit yi muy xidaay ci yow sa talibu bay bu waaroo waaru bay waree xam ne kon loolu dana dana dana wone eh, a aw jàppin ak fa ko fam fam ko teg eh, noonu la ma siyal soxna soxna soxna mooy tam marché marché marché bu bu bu yéeme nga xam daal ku mas jiitu ci ci ci doomi Sëriñ ko nekk marché yàlla la soxna bi Seex man nga ne moo ci raw ba tax na dadaa wax soxna may naan ko li dox suñu diggante xanaa mbirum yàlla waaye du ci faylu kese xam naa daal Sëriñ Tuubaa moo ci dugal moo ci moo ci dugal baatinam loolu la koy firndeel am na leetar bu ko soxna Xadi bind boo xam ne da da dana firndeel loola dafa ne amma ba'du fa minni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba'du fa minni aminatu cheikh ila sayyidati bint cheikh bint cheikh al akbar maa ngi li nuyu lu bari lool te di la xam ne seereel ne wóor na yàlla ak sa baay sama yéene ci yow ak lu aju ci yow mënuma koo jëfe yàlla rek ak sa baay ñoo ko xam waaye dogal rek nu yàgg fi ngir man kat xam naa ne loo dogu ñu fekk la ci kon am màngoogu rek ci sama bëgg sama bëgg képp man li dox suñu diggante xam naa ne du man kooka moo ci jëfandikul boppam waaye li nga ma jox dama koy bañ a delloose waaye mbëtu ko woon damaa xam ne jox nga ndaw li ndax dafa am ndaw lum lum lum yaw yi nekkoon na nga jaar ci soxna Ami Seex xam na am lu ko joxaale ma damaa xam ne jox nga ndaw li day day teggee waaye kon du ko fi bàyyi yégal ne dara dara def ci yow man li dox sama dégg yow du lu di def ngeen man lu di def xam na xam naa na mi mel yégal daal man sa baay ki def lii ci man may sama seere ci yow salaam ba nu gisee mënu maa wax lépp bul fàtti bul fàtti bul fàtti seen saa loolu kon day day fin day findeel di kon seen diggante na na na na mu demee woon saa suma ma sànni tukki sax soxna Mbay lay lay dénk ay njabootam moom soxna bi Seex te boobu ma nga Salaam te ñim leen man dénk ci dëkk bi bari nañ waaye day dem ba Daaru Salaam dénk leen soxna May su demee ba ñëw soog leen a jëli soxna moom it mooy tam lettre bi mooy mooy firnde ji lettre bi bi nga koy jébbal doomam ji ñi doomam doom jee di soxna soxna soxna euh, Bali la ko booleeg lettre bi waaw asalaamaaleykum yaa binta Cheikhil Xadim maa ngi lay nuyu te la sant soxna bu sa moom maa ko booleek maam Anta ñibbisi ci say loxo sa dooma googu defar ko ba bum yàqu ba bum yàqoti mukk du neen waxuran bu ko yoree ak njureel yore ko ak taali yore ko ab la lu taalibe yëpp def ngir Cheikhul Xadim na koy def li ma ci am laa la ko jox doy nga ma ci saahiran wa baatinan tamma ala yadi muhibbatikum haqqan mu'mina yomal isnani haadi min rajab al fard waqtul fajri ama jaf sachin wala ali wallahu alim bi daati sudur wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala nga xam ne kon eh, wax wax ji li muy gàtt gàtt gàtt lu bare bare bare bare lañ ci lañ ci mën dégg mën ko cee jëlee kon seen diggante nga xam ne kon noonu la ko jébbale woon gannaaw bi la mujj loxo soxna su gaawaan gannaaw soxna may waaye moom soxna may la ko la ko la ko soxna moom yi jébbaloon te loolu loolu mu ci waxamoon dégg nga ko soxna Astou Mamour Diarra ak soxna Mariam Mbacke itam noonu soxna Mariam mooy taw Cheikh Cheikh Moustapha moom dañoo jaxasoo woon lool sëñ Tuubaa leen boole woon sax mhm. soxna musliman dañoo wecce woon ak ak ak njaboot moo tax soxna soxna assumi bi mu faatu maama jaar def na ci marché bu gudd a gudd a ba xam ne defe naa eh, way yim way yëpp yoo woo ci gën a gudd xasida gudd la ci def ci marché wax lu baax lu ne wax na ko ci moom mm-hmm. ba ca biir sama wax ne billaahi yaa gën am na fu mu koy wax ci biir ci biir xasida googu di wax soxna su ne ko billaahi dañoo wecce woon ak njaboot soxna maam ànd soxna muslim la ko joxoon moo ko yoroon soxna monsieur mas laa yónni soxna maam Anta ci soxna May bala ko ku ñuy wax Soda Amar jox ko sirru rabal bi ñu tuddee cadre murit ne ko joxal ma ko soxna May ndax doomi Sëñ Tuubaa gëj ko joxe addiya dafa wóorul fekk soxna May mooy di yónni soxna soxna Musli jox ko mooy sirru rabal ne ko joxal ma soxna ko joxe addiya dafa wóorul. <laughs> dégg wax ji. kee daan doomi Sëriñ Tuubaa ko addi géej ko jox addi dafa wóorul kenn dafa warul kenn sa morom te yëgawuñ ñaari ndaw yu ju yoloo kenn ku ne yut sa morom siru rabal ne ne doomi Sëriñ Tuubaa jox géej ko jox addi kenn dafa wóorul kenn dafa warul kon da ngay xam ne kenn ke rek lépp kenn kee ndax nim nim ya nam nam nam niiroog nam na mu doone benn kon da ngay xam ne kenn kee rek loolu bu ñu toppee mën naa gudd loolu soxna may moom soxna may eh, bi leen Sëriñ Tuubaa boole soxna may soxraa moo ci feeñ ndax moom la ko Sëriñ Tuubaa tudde Daaru Salaam la ko daan fekk ñu dem ca soxna Fatje yóbbu ko ñu wax soxna benn sooda soxna benn sooda karaman daan njàng euh, barsen ji karaman jooju moo tax ñu tuddee ko karaman ñu fanaan defa jàng bu bës set waaye ku daan dem ci bàjjen lu bare bare bare bare baagante ko lool soxna bintu déndéy moom sëñ moo soxna moom la ne moo di taawam ba ci wér digg moom la woowoon mu nekk ak moom ba ci kawam kawam sax la wàcc ab liggéey moom moom moom lu lu baree bari lañ ci mën a wax waaye waaye waxtu waxtu gud maye digga ma soxna Xadi nag soxna Xadi moom euh, njabootu soxna Xadi gi mu la jàpp njabootu boppam soxna ay demi soxna Maya doonoon ndeyam da ko féete woon ba day mel ni sax moom la gën a fonk ci doom yi boppam lu masaan bëgg a wutal soxna toora su ko mënta def ñaar da koy far baax jox soxna toora jox ko moom it waaye jox soxna toora ba ko musu ko def lu mas def lu nekk rek kon moo doon ndeyam moo doon léppam féete ko fépp Cheikh Abdou sànq rek ñi ci waxtaan bi ma ci leeral lu bare bari ci ci diggam ak moom nga xam ne féete woon na ko fa bare bare bare ba ci am na lettre yoo xam ne sax da da da ba yónnee sax da da ko ci tudd am na am lu mu cay wax waaye yëpp nag xëy na waxtu ko du maye mook sëñ Moussa Ka ñu jaxasoo woon lool ba yéeme na lool ni ni ni ñëwee ci ay ay ay way rek ab tegtal la ci moo tax bi ko ko tàggee dafa li desoon ca man di kalaj kalajee far nga ko far na ko lati ko. macha allah <laughs> waaw loolu la wax ndaw la ko tàggee nga xam ne moom daal ci fan yooyu la fa daal la fi daal di jóge moom. sëñ Mbacke na ci ci moom la ñu a jëlee àll doomi sëñ ndax da ko ne caabi ndax da ko jël ndax ña nga ko jël mënu ko caabi la buy ubbi buy sa mbir yëpp mu door ko nangu jël. sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Ibra Fall xaritama lool ngir niroog soxna May niroog baayam Cheikh Ibra Fall ci ak taalibe ak son ak sonam mayit bëgg Cheikh Ibra Fall lool ba bi mu fi jógee yàlla bool leen ci ndigal Sëriñ Fallu ndax bi sonam may wàccee euh, Sëriñ Fall dafa ne wetu barab barabu Cheikh Ibra lu fa nekk mu ne ko ñu ne ko jalum bari mu ne nañ ko fa jëlee te denc ko fa Cheikh Ibra dana xam ne ku mel ni moom ci taalibe ngoog yi tey doomi Sëriñ Tuubaa. macha allah jërëjëf. waaw loolu de kon doy doy doy doy na sëkk nga xam ne kon doomi Sëriñ Tuubaa la muy cërub boppam waaye mu am ci taalib foo xam ne itam eh, Cheikh Ibra Fall lañ koy dendaleel kon lool lool lool lool day wone ne eh, moom eh, lam lam jagoo moom rek moo ko moo ko jagoo. macha allah Baye Sëriñ Jatara ab taaw moom la ko tuddee. ab sëte ma ngi nii toog Sëriñ Mbàkke Buso tuddee na ko doom ki mu ko tudd ki mu ko tuddee moom mi mujj doon xalifaam ci ci doom yi ñoo bokk ndey mu ne wax lu yéeme ndax ba dañ doon sikki sàkk sëñ Mbàkke ndax mu lu ko tudd ndax su boobu may gone la ci moom ndaw la ci moom lool ak sëñ Mbàkke ni mu demee woon ko xam sëñ Mbàkke ñu sikki sàkk mu lu ko bañ ko ko laajee mu a waaw sama sama sama doom dinaa ko tuddee <laughs> nu mu ko waxee di sëñ Mor <laughs> doomam koy tudde day fekk muy kooku ma nar a moom ak ñaari waajuram. la ilaha waaw xam nga kon kon oh. koo xam ne mënut a ram nit ak ñaari waajuram kooku da kooku dinaa ko tudde sama doon defe ngeen. nga xam loolu la leen tontu. Mm-hmm. ak soxna Mbay ni ni nga xam ne noonu la doone woon ndaw ci ndaw ci moom. te bayit yooyu mu ko mu ko wéyal te mu indi ci gannaaw lool lool loolu firndeel na mu tegoon suñu mbàkke ak ak lu mu doon ci kon defe naa mën nañoo taxaw foofu. Hmm. jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Mor daa mel ne li ñuy séddoon ci waxtu jeex na waaye waxtu yi day àgg foo xam ne doo xam foo koy daggee ndax li ma waxoon rek géej moom soo yoree ñaari pot di ci ngàcc yaakaar naa ne fas nga fa yéenee fanaan te doo jeexal te lu mooy li ñu dal ci waxtaane soxna Maymunatu Mbakke day mel ne loolu nga waxoon ne sëñ Touba bi muy laaj ci bi mu feeñee jamono dafa waxoon ne góor la wala jigéen te bari na ci waxi sëñ Touba lu mu njëkk a wax rek la yàlla dogal mm-hmm. bi mu doonee jigéen it mu ne cërub góor lañ ko fàggul barki dem boo njaay la nit ñi sogo man soxna Maymuna Kubra bi ci jàngkat yi duggee waaye ñëpp may soxna may kabir lañ daan wax yaakaar naa ne ñoom joxoon nañ ko cërub góor bu yàgg te te xamaguñu woon li ci xew ba lu ci ëpp sax ñëpp ñi gën a miin soxna may kabir rek ngay dégg ñu di ko wax kon yaakaar naa sëñ Bousra eh, daa mel ne waxtu wi jàtt nañu waaye loolu nga waxoon rek eh, yëf yi seen i boroom la ci boo ñoo leen ci boole te xam ne bokk nga ci eh, xam naa ma jox la yeneen kàddu rek yi ngay mujjantale su ko defee ñu ñu tëj jotaay bi di siyaare mbak mbooleem njabootu sëñ Abdul Xaadir gépp tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh euh, ak mbooleem ñi mbokk Cheikh Abdul Xaadir sëriñ Moustapha mi nga xam ne bis bi su masaadi am waxtu ne moo koy teewee waaye di siyaare nag mbooleem këri wëllëri yow yi nga tudd muy këri taalibey sëriñ Touba yi ak kër njabootuk sëriñ Touba gi njabootuk Daarul Muxti gi bàyyi wuñ fa kenn njabootuk euh, Mbàkke Xewar gi ak sëñ Mor moom soxna jaara ba ci njabootuk sëriñ Muudu Maamoon gi loolu nga wax léegi nii ci soxna Assu wax nañ ne keroog bi mu génnee àdduna mooy waajuru sëriñ Amidun euh, ak ñi mbokkal bi mu génnee àdduna way yooyu ko soxna may way yëmu ci bi mu koy jaale sëñ Mudu Maamun daf ko ne ko amut paasu poroxaande la nga fay wuti boo ko wutee ca barabu asubàkke ba am ko ndax ne wax nañu sëñ Mudu Maamun def na fa weeru lëm woo xam ne da ko daan bagante ne nañ barkeeli kàddu yi soxna may mun a te loolu lu dëggal la kon sëñ Busra bisimilah euh, jëf sëñ moor kon soxna may ngi noonu nit ku ne waxtaan la rek ginnaawam ginnaaw bakkanam nit ku ne aw léeb nit ku ne ku ñuy waxtaane nga ginnaaw sag nekk ci kaw suuf meloon na mel na ne xamoon na ni dafi jaar ci àdduna jàll waaye nag marke na jamonoom ci jëf yu baax xamoon na ni sëñ tubaaku jur ci ñaari wàllam yëpp waaye loolu doyu ko woon ci boppam mu def la mu def jaay bokk ko jënde ko ak taalibe teg ci yitteem ak jomam ak pëstéefam ba doon taalibe bu bu dëggu baaxam nga itam mu tàmbalee ko ci jëmmi boppam ja ak di baax ca la ko wër ak la ko jige lépp baax ci bokkam baax ci ay diggaaleem bokk ya ka ci gën a jige di Sayyidatuna Xadijatu bintu Cheikhul Xadim mi mu bokkal lépp ba noppi yàlla dogal mu jëkk koo dem dégg nga loolu soxna euh, soxna si wax soxna soxna aji soxna Ayda soxna Aïchatu Bousso moom sëriñ Xasan Bousso ak soxna Xadijatu soxna Aïchatu moomu di soxna Ayda Bousso loolu mu wax wax bu daw yaram la moom soxna Ayda nee na man de loolu wolof naan ndey kenn amul kuutaat soxna may tax ma weddi ko moom de ba mu wutoo sunu ndey ci nu nit doy na sëkk kuutaay nun dey sëkk ndey ci yërmande ak cofeel ak féetunu fépp ngir jëmmi sëñ Tuubaa musunoo xàmmeek doomi boppam yi mu jur nun la gënoon fonk sax ci ñoom nun lay jëkk a sédd nun lay jëkk a taxawu ba tax na loolu ñu wax ni ndey de su ko wut day soxna may weddi na ko waaye sëñ Tuubaa nag weddi na waxi wolof yu bari weddi na waxi wolof yu bari bari bari noonu mu mel ci doomi mbokkam moomu ni la mel ci doomi mbokkam yëpp ba kenn ku ci nekk ci mbokkal sañ tubaa doo ko ko waxee yëkkati nga sa doomi bopp jox ko ko ngir bëgg jikkoom ndax ñaar buñ bokkee ndey ku ci gën bàyyi ci gën ñaar buñ bàyyi ku ci gën ci gën ñaar ñu bokk ndey bàyyi ku ci gën ku la yar la gën sëñ Tuubaa daawul wax ku ko jur ku ko yar rek lay wax boo gisee mu yemut ak kenn ka yàlla yaral boppam moo ko yar moom sëñ Tuubaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni adaba ni rabbi fa asana moo rafetal sama yar ni nii rabbaytani baada itaamin wa tarwiyatin min yawmi an yawmi tarwiyatin isjudu sigyana makkantani baada dayxin suxtari xulalan muwassian baada ma qariatu uryaana kon ab yar dafa am solo doomi sëñ tubaay yi nga xam ne ñu góor lañu ak ñu jigéen ñi kenn ku ci nekk jël nga sa doomi bopp jokke ko ak bokk sa digganteeg soxna may ngir mu nekkal la fa moom it mu def noonu ak njabootam damay faral di wax ni soxna may daal sëñ tubaa ko jokkeeg bokk rek faf waaw dëgg dëgg boo seetee ci gàttal daal sëñ jëmmi soxna may ji rek la sëñ tubaa jokke bokkam gépp te loolu ku xam ni euh, achira at ko gis njërtam rek xam ne noonu rek la demee mel na ni ñëpp doon nim sem soxna may moo tax mu def soxna may fépp def ko muy mbokkum ñëpp diggaaleeg ñëpp joteeg ñëpp euh, jikko nag lu am solo la lu mat a sonne la soxna may grand soxna may grandeur bi ci moom ci moom rekk la nekk ndax da ngay xool ni mu mel ak bokki boppam yi waaye noonu la meloon ak seexi sëñ Tuubaa yi ak murit saadi xam yi noonu nga ko waxe fenn fu nekk fu sëñ Tuubaa def dara rek euh, foofee soxna may ab wëllëre la fa mbokk la fa ca Baay Faal yaag ca Mbusoo bee xoole nii nii sëñ Mbàkke Buso tollu ci moom ba mu woy ko ak ñi Seex Ibra ci moom mm-hmm. dendale kook moom mm-hmm. sëñ loolu mbir la moo xam ne mii nag du du du ak kii ndax ni sëñ Mbàkke Buso toll ci moom ba noppi nii Seex Ibra Faal toll ci moom ba sëñ Faalu digle ñu dendal leen nga xool ni meloon ak Seex Muhammadu Bachir nga xam ne ñoo bokk am at moo ko taxawu te sëñ Mor nee na keroog bi nga xamee ne seex soxna may nelaw na ca tisbaari ajjuma joojee ca ca tisbaari alxames joojee dafa wax ne ah dañ ko denc ba suba bokkam yëpp taxaw ñu seere ko te jullee ko waaw nga xam ni seex Mouhamadou Bachir ko taxaw ci kanam bokkam yëpp te booba de bokki mu soobeem yëpp nga fa ndax soo soxna Aminta ku jur waaye da ngay xool rek te booba seex Mouhamadou Bachir am na ngànt ci yu bari ndax ñoo bokkum at sax waaye moo ko taxawul boppam. noonu la ku baax di mel doomi sëñ Tuubaa yii mat nañuy xool seenu dund bu baax muy góor ñi ak ñu góor ñu jigéen ñi ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni yàlla may na ma ci barkeb sootul haadiyaat sama góor barkeel nañu sama jigéen barkeel nañu mm-hmm. ci doomi sëñ Tuubaa ju góor ju jigéen képp la góor mën a xool di ci roy ba defaru mm-hmm. ba gën góor ñi te fekk jigéen la roy mm-hmm. waliya baarik fil banniina wal bannaat bi suuratin awwaluhaa wal aayaat mbooleem lii ñu ko fi wax te muy jigéen góor gu baax gu ne mën na cee moo tax wa man yaxmal min saalihaati min zakarin aw unsaa wa huwa muminun mhm. fa la nuxiyannahum xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaxmaluuna loolu doomi sëñ Tuubaa rek ko ko matal yal na ko yàlla fay yàggul àdduna mhm. defe naa mook sëñ Moodu Musaa ñoo tolloo lu ñu dund mhm. juróom fukki at ak juróom ñaar ak la fi am ci la def lii nu doon nett lépp ci la ko fi def di jokk bokkam yi di siyaare gi fu sëñ Tuubaa def dara def na fa bokkam yi mu bokkal sëñ Touba ci la way lii mu fooy ci la bind lii mu fi bindi ci kaamil te ku ko yàlla ma sa booleel itam am na sa ngërëm ndax doomi sëñ Touba bokkuñu sunu sunu sunu sunu ndey yi ñun wax dëgg yàlla ndax ñoom ku ñu mës a nekkal ndax ba ci ba ci soxna muslim yi nga xam ni ba mu nekkee ci loxoy sëñ daam gone la sax buru buru ba sëñ daa mos moo ko daa togg ndax dafa amoon amoon xarala ci mën a def ay spécialité xam lu mag mën a lekk xam alimentation bu baax ci mag ñoom ñi kuñ ma sa nekkal ñoo gën ci yow sëñ xaarim docteur nee na fii am na bis wax na fii lu daw yaram neena na nun de sëñ Modou Awa Balla mooy sunu baay borom daaru jur ko mu dib taawam waaye gisoon nañu soxna moomi de nam doon defal sunu baay sunu ndey sax mënuñu ko woon ndax daana toog di ko tàngalal war ga ci loxoom bu tedd ba te ku ne xam ne ni soxna moomi la nekkoon ci loxoom ci ay gone ñu mën a tàngal sëñ Modou Awa Balla bari na sëñ Modou Awa Balla am na ko tàngal ataaya waaye sëñ Tuubaa moo bëggul woon Euh, li mu wax ne man yàlla defal na ma sama bëgg samay doom mooy sama doom a gën ñëpp ju jigéen jee gën ñëpp ju góor jee gën ñëpp. macha waaye xam nga ni soxna May mii li ñu nettali fi moom te ku ma sa nekkal ñoom nekkaloon ñëpp ay càmmiñam lañu. Cheikh Mouhamadul Habib càmmiñam la ñoo bokk bàyyi sëñ Mor soxna Magama ñoo bokk bàyyi sëñ Modou Mamoun noonu ku ma sa nekkal ku ne ngay xool ci moom sëñ Touba waaye moom it muy wut ci sañ tubaa Touba ndax doomi sëñ Touba jigéen ab chef de ab traitant du ko denc ab chef de du ko denc borom barkeb adduna du ko denc doomi sëñ tubaa borom ngërëmal yàlla am koy denc moo tax doomi sëñ tubaa yi seen doomi sëñ tubaa yu jigéen yi seen doom yu góor yi mat naa bàyyi xel ndax doomi sëñ tubaa yu am ngërëmal leen jur ba noppi ñu baax jur leen ñu mat a bàyyi xel lañu ndax kenn ku ci nekk sëñ tubaa da def ci cër ba nga war a am nga doon nga mën a wuutu góor ñëpp ba noppi sëñ tubaa ñu jël la nag bu dee ci jamonoy sëñ tubaa la ñu jël la jox la ku ku sëñ tubaa gërëm mm-hmm. moo tax seen doom yi macha allah ñu mat bàyyi xel lañu. te di leen wormaal te di leen siyaar. nun de ñañ ca xamoon. koo ba sa dégg mu fees bu noppit boo ko xoolee mu buur sa bët barke sëñ Tuubaa ñu am solo lañu woon yàlla noonu yàlla tàcc seen barke kon ak bisam bi yàlla dellu soit fekk nu fi te yàlla de delloo mbas mi ginnaaw ba nu man koy daje nañ ko daa daje di ko defee nañ ko daa defee te sëñ Mor yàlla fay la taxawaay bi ak coono bi ak bastu bi ndax dañoo wax ni ku yiy yeex bukki yéey nga yax man boo dee bind ci yi mel nii di ci boo ci sonnee dama koy xam ku ne xam na ni lii def nga ci yitte bu baax def nga ci gëstu bu baax te nii la baax baax su war a mel nga topp ko def ko muy mu alaj bu baax nga def ko tër ko tër bu baax moo tax ñu fi nekk ñëpp seen xol sedd na guyu noo ngi ñaan ci daraje sëñ Tuubaa yàlla suñ borom dool leen wér te yàggal fi sëñ Mor mi moom itam euh, ma bokkam yu baax yi ak sëñ Abdou Lahad mii nga xam ni ak seeni bokk ak sëñ Abdou sëñ euh, sëñ Abou mi nga xam ne tey jii mooy seen nijaay di seen lépp di seen baay yàlla yàggal leen fi ñu yàgg ko gunge moom itam mu am fee ca kër sëñ Modou Mamoun nga kër sëñ gaawaan nga lu kawe njortam ci barkeb sëñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatullahi ko xam xam naa ne day mel ni sëñ Mor. sëñ Morum sëñ Cheikh May yaakaar naa mu yëkkati kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Abo Mouhamed mi digle jataay bi eh, te joxoon ko ci ndigal. Eh, ñuy ñaan nag sëriñ Bousra di ñaan sëñ moor di ñaan mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo nañ ñuy seetaan ñu ñaanal sëriñ Abo yàlla guddal fanam dolli wéram ndax eh, tey jii mooy sëñ Modou Mamoun ci kaw suuf waaye mooy jëmmi soxna May mun a ci kaw suuf te liggéeyub soxna May yàlla na feeñe ci moom ndax eh, wuutu na fa ay mag wuutu fa ay mbër waaye kere ba mu toogee la mu njëkk a wax mooy ku ta ku sori ak ku jege laa ci yemale na ñëpp xam ne sëñ Modou Mamoune laa doon ci ñoom bët ba ba mu leen doon xool ma maam laa leen doon xool fu mu fu mu defoon dara it fas naa yéene lool aboo da ko yokk waaye du ko wàññi fas naa yéene nag Daaru Salaam koo xam ci dundal nit ñi ak dimbale jërëm yi ci nga leen xamoon daal taali sëñ Modou Mamoune yëpp laa bëgg ñu dekkiwaat waaye yaakaar naa ku dund weeru koor wi da nga xam ne ma ngay liggéeyal sëriñ Modou Mamoune loolu nag daa am magam ju baax di doomi nijaayam di sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad dama ko yët suukaru koor mu ne ma ana sëñ aboo ma a ko ma nga fa mu a culum ne ma ne ko ah mbooleem la fa sëñ Mudu Maamun daan def de ma ngi koy jéem dekkalaat ko fas yéene nit ñi duñ xiif duñ mar mu ne ma nee ko loolu mooy liggéey bi julleeg wor topp yàlla la da koo digle ku ko defut ñu duma la waaye jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi lañ koy def waaw loolu sëñ boo ko waxoon kon sëñ Sidi kon nañ ko ñaanal yàlla mu guddal fanam te dooli wéram ndax yëf yi ñor na ko lool kere bañ ko waxee daf ne sëñ mooroma ci doy nañ dem toppatoo ko waaye lépp lu laaj nañ ko ci def ndax lépp luy wane liggéeyub soxna may Maymuna di wane ngërëmul yàlla am lu ngeen ma ci laaj rek ba ñu ma ci dara kon day mel ne kon lii ñor na ko lool te waxtu wu ne waxtaani nit yàlla yi day wàcce yërmande waaye doomi sëñ Tuubaa ci rawati eh, am na menn mag mu baax mu ma nettali eh, nam ma ko waxee nee na sëñ Abdu ko waxoon ne loolu sëñ Tuubaa ko waxoon def ko ne sama doom yi jigéen yii seen wayjur ya leen meññi ni ni ni niw naaru góor gëne eh, ngudd nopp yi gëne nañ leen ko kon yaakaar naa ne loolu tegtale ne ñoom seen i wayjur luñ gërëm leen gërëm ba noppi te ku dul sëñ Tuubaa rek bañ la denc loo nit nga denc ko mokkulul alxuraan na nga ko wuyaale sëñ Tuubaa rek mooy koo xamante ne bi du denc ko mokkulul alxuraan ragaloo yàlla kon loolu moo tax lii sëñ Bousra di wax ne seen njaboot gi war na nañuy ragal bàyyi xel lool seen doom yi da ciy feeñ bu baax a baax ndax boroomi ngërëm rek ko jur ak leeruk sëriñ tubaa kon ñu bàyyee la kàddu gi su ko defee nga tëj jataay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokk yi teew yëpp di sant ñëpp ci teewaay bi di leen gërëm bu baax a baax ci turu sëriñ Abo mi nga xam ne mooy suñ kilifa ñun ñëpp ak ci turu njaboot gi aju ci kër Soxna May yëpp sëriñ Abo mi ngi sant ñi fi teew ñëpp di sant sëriñ Fàllu mi nga xam ne mooy ñëw ak ñim àndal ci turu te te ci turu télé bi ak kilifa yi ko jiite yëpp mi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci yitte ji ñu def yitte ju rëy la mu ngi leen ciy sant bu baax di ñaan yàlla gën leen a dëgëral te fay leen ci aw yow nga xam leen ne suñu aboo nag moom lii mu def nii day tekki na rek eh, eh, ab taxawaayam ak tabeem ndax la war a am bu amoon. mooy ñun ñiit it ñëpp dañoo waroon a ànd dem ca ëttam ba bokk toog lii ñuy def nii ñu defe ko ci kanamam waaye tabe ci dara jaam moo tax mu joxe ndigal ne nañ dikki defe ko fii loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax di ko ci gërëm tey ñaan ab taxawaayam yàgg ndax kenn ku ne ci ñun ñi nga xam ne suñuy waajur soxna ma yi leen meññ kenn ku ne ci ñun bu toogoon fii ma toog mën naa wax lii may wax te xam la ne mboolem fu ñu suñuy waajur féete woon féete nañu fu ko raw suñuy mbir nigu ci kenn digluwu ci kenn fu ñu war a féete féete nañu fa ñu ngi ko ciy sant di ko seedeel àdduna sépp di ñaan suñ borom fay ko ci gën a dëgëral ab taxawaayam mboolem lu mu yéene ci kër ñaari waajuram yëpp yàlla na ko ko suñ borom defal ni mu ko bëggee barke Sëriñ Tuubaa xaj na wax ji moom du du du du mënewuñ ko dañuy sant ci turam rekk di ñaan mboolem li nga xam ne moom lañ yéene ci yéene woon ci jataay bi yëpp suñ boroom defal ñu ko ca muy fajuk ajo àdduna ak àllaaxira yaa nañu ko suñ borom bokk defal ci dara darajey yonent bi dara darajey suñ tubaab mi yaakaar nga xam ne suñ lépp ci moom la ajo ci dara darajey soxna May mi tax ñu daje fi ak ci darajey barab barabam bii ñu daje fii ñu toog nii moo doonoon barab bi mujj dëkk ci àddina sëñ Basiiru mii ñuy wax nii moo ko takkal néeg bi sëñ Basiiru Géey la fi yabal moo ko ko takkal fi la jógee dem Mbàkke ca hôpital ba ba mu ab liggéey kon ci ba ci darajey barab bi darajey moom mi tax ñu daje fi mboolem la lim amoon ci sëñ Tuubaa ñi ngi ñaan ci daraje jooja yal nañ suñu borom fajal suñuy aaju sant nañ bu baax a baax di di gërëm ñëpp. jërëjëf euh, sëñ Mor Soxna mi nga xam ne moom la sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun euh, joxoon kàddoom di ko liggéeyloo jataay bi jërëjëf sëñ Mor Soxna moom sëriñ Jili Gànnaar moom sëñ moor Soxna moom Maam Mor Jaara jërëjëf sëriñ Bosra Sambu ci kàddu yi ñu sant bu baax sëñ Abdoul Ahad ak sëriñ Jili ak seeni rakk yi ñu fi bokkal toog di sant mboolem téléspectateur yëpp nag di leen xamal ne jataay bi dara warul ko woon weesu fàttali ko doomi Serigne Touba fàttali ko taalibe Serigne Touba fàttali ko woon mbokkum réew mi fàttali ko woon it jàmbaar joo xam ne liggéeyal na lislaam te Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba murit yàlla war a fay te Soxna Maymuna nag liggéeyal na Serigne Touba ci taalibe Serigne Touba yi yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla na fi yàlla yàggal ak njabootam yëpp te dolli seen wér yal na yàlla dooli seen teraanga ñaani soxna sëriñ Mor soxna yi yal na ko yàlla tisaari ci réew mépp ñu bokk ko jëriñoo barkat Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفي بقاء بهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له